à ah, ci àjjuma ji kay yi ñu xëyee tey jile Chérif ñu tambalé nous L'observateur l'observateur ñëw ci li xew démb ci tribunal ba muy procès bi doxone digënté Sonko Mambay Ñaar toute l'enquête de la division des investigations criminelles ci moomee même laata la koy xóotu sax ñëw na kon ci récit journée mouvementée bi ak tamit ni wa BIP di brigade polyvalente bu police dal di exfiltré ki di Ousmane Sonko dal di koy rek dugal seen oto yóbbu ko këram wàcce ko fa am na explication major Aliou mais mi nga fi ay jamono gendarmerie ci enquête ba rek euh, am réquisition dem inspection générale des finances di IGF bi nga xamanteni kon ñoo pré rapport ci gestion Prodac ak yu mel yene kay bi politique ba ak ak Cheikh Tidiane chargé stratégie ak vie politique bu pure du parti de l'unité et du rassemblement de Serigne Moustapha Fassi daal koy les pures vérités de Cheikh Tidiane Youm moom nag moom ci actualité bi ak tolluwaayu Sénégal Mingi danka dànkaafu rek ne conditions yëpp prévenir leen ngir Sénégal dugg ci ay tooxi na ba tax kon mingi ngi ci kon am forte chance yoo xamante ni kon Macky bañ terminer mandat Mom Cheikh Tidiane Youm moom moo ko wax nee tamit lan moo tax ñu daal di tànn Serigne Moustapha ngir mu candidat ci élection présidentielle yu 2024 ñëw na ci ñoom pure ñuy fàttali ni mars une fêté c'est 25 ans d'existence. Tu vois, le premier ministre, moi, je présider président assise de l'entreprise, CNP doon ko jiite moom nag am na ay assurance yoo xam ne mi ngi koy joxal patronat bi lancement jëm ci rek li nga xamante ni mooy data center mu mel ni kon ñii di Onyx ñoom it ñëw na rek muy infrastructure yoo xamante ci wàllu technologie la et puis dem dikk annoncé na lu toll kon ci bus yoo xamante ni doon koy indi 300 yi kon dina dugg ci circulation yi fii ak juin kii di kon sëñ Silami seen directeur général moom moo ko wax et sportif yi nga xamante noo nekk ci ay détresse Mané Antoine Mbengue ba ci sax gis nga ko euh, Mabouri Niang ñoom ñëpp daal ay ex internationaux lañ ak ñu am loo xam taxawaay nañ ko taxawaay Sénégal mais ba léegi daal am nañu ay jafe-jafe bëgg ku leen geesu. ñu dem ci enquête. procès 29 milliards du produit mais kon une première électrique démb daal mbir mi tàngoon na trop ca tribunal ba ba ca yoonu euh, kër Sonko ban ca jugee ba renvoyé procès bi gis nga ko avocat yi leader yu Pastef nag moom am na nun def rek ba daal di am renvoi procès ndax juge bi dafa bañoon finalement bi bâtonnier bi ñëwee kon mbir mi dàq ko ba 16 mars prochain bu ñu sukkandiku ci yéen kaay Mame Mbaye Niang moom nee na procès bi bu fekkente ne moom moo tere nar a Sonko mu bok ci élection yi wala mu nekk candidat mom na xamni du bok ci élection et puis tamit amna ci lo xamante mom moom Sonko wax na ko rawatina ñi and ak mom mer nañ trop démb ni ko police def ñëw également ci élection présidentielle finalement japp nañ ko ndax fixé nañ date bi le 25 février prochain et puis réforme jëm ci enseignement mardi ba léegi rek yoon wi nga xamante mo ñu yobbu ci appel bi les 5 fondamentaux buñ ko ci yene kay bi def na ci benen beneen kay le quotidien. affaire Mame Mbaye Niang Sonko mu melni kon mi ko tudd rek sur un

Ablaye Seydou Sow mooy waa APR ñoom it ñu ngi doon def benn conférence de presse jàpp ni rek euh, posture combat moom ñoom dañ cee war a nekk et puis procès bi renvoyé nañ ko ba le mars Amadou Ba mu ngi annoncé ay réformes fiscales jëm rek kon ci taxawaay yi rawatina kon ci entreprise yi lii tamit lu am solo la ci wàllu environnement muy Falémé bi dafa mel ni rek ndox mi dafa am lu mu jaxasoo ba jëfandikoo ko euh, doy waar ba kilifa yi war nañ koo dépolluer mm-hmm. le soleil. le soleil daal ñëwaat ci bilan président Macky Sall ci présidence Union africaine moom nag février 2022 ba février 2023 la attaque ni les temps forts de mandat mis à profil nee rek pour euh, faire avancer les grands chantiers euh, si chers à l' Afrique yéenekaay bi et puis tamit Yaxam Mbaye am na benn euh, édito boo xamante ni def na ko ci wàll woowu. Mm, libération la ñuy dem lu mu xëyee. ñëw ci jafe-jafe yi amoon rek diggante Ousmane Sonko ak alkaati yi mel dañ ko embarqué de force daal di koy rek yóbbu puis gazé loolu nag moom la yéenekaay bi daal di wax moom bim mu génnee këram rek ngir dem défi conférence de presse ci ngone gi le ko gars rek sànni ay grenade lacrymogène police daal rek euh, assiégé këram ak yu ni mel nee na rek euh, gis nga ko rek am na ay blessés yoo xamante ni am nañ ko tamit ca Bignona ginnaaw ay affrontement Ousmane Sonko moom nee na l'heure est au combat tamit euh, dafa nekk illégalement ci li nga xamante ni moom mooy résidence surveillée te loolu ñaawlu na ko Mame Mbaye Niang moom nee na Sonko dañ ko war a kii moom ci wàllu escroquerie yi ak tamit charlatanisme ci lañ ko jàppee ginnaaw Kounkandé Cheikh Bara Niang mii gis nga ko rek def gis moom it teg nañ ko loxo dañ ko defeere au parquet ginnaaw rek euh, bi mu euh, jëlee alalu Ben sénégalais bo xamanteni mi ngi ngay dund fële États-Unis et puis ñi ngi doon wax légui ci story killers yi nga xamanteni ñi ngi doon dund Sénégal ay ñoo xamante daal ni influencer élection ci aduna bi Macky Sall kon ñu nga ci joxagne baaraamu tuuma quand les Israéliens kon de percepto dicté Emmanuel Dupuy le kay bi wax. Mhm, tribune xat bu ñëk wi nana police day acharné manam dafa sing liquide du Ousmane Sonko borom journal bi di Bougane Gueye Dany de nee Macky dafa décréter rek la fin de la démocratie fi ci Sénégal gone yi nga xamante tamit ay jeunes bu à menu ñu jiital leen genre chair ak canon la leen jappé Walf Quotidien. récit d'une journée mouvementée mu melni kon violence inouïe contre son et y yene kay wax muy fitna gi police dal di tek leader Pastef dañ ko extraire ci autom dugal ko ci auto police waccé ko kërëm gazé ko bimu bëggé d'un dem ci ngone gi ci conférence de presse am avocat maître Cyril Clédor li mom japp ni rek on va tout droit vers des crimes manam ay bakkan yo xamante ni dañuy root Sénégal, ci Sénégal dañ ñëw ci yenen ponk yi ci mhm.

kii di Ousmane Sonko ndax juge bi dafa bëggoon a àtte mbir mi ca euh, teewaay ba wante moom euh, bâtonnier bi ginnaaw bi mu waxee ak ñoom ci lañ ko envoyé ba le 16 leader Pastef moom dañ ko exfiltré sax gis nga ko rek ci li nga xamante ni kon mooy otoom yóbbu ko këram et vitre yi ñu daal di koy toj ak yu ni mel ci ngoon gi nag am na ay blessé yoo xamante ni am na fële nga xamante ni moom mooy ca Bignona Ablaye Seydou Sow bu APR yëkkati ne ci kàddu moom nee na daal pare na 100 pour cent ngir sax delluwaat ci terrain yi ginnaaw bi mu amee blessure bu ko télé mu football depuis avant kon coupe du monde ba démb ministre des sports ak ñom El Hadj Diouf am délégation bu demone ci Munich ngir seeti ko némé ah, ba tay bëss bi le jour li xew démb. Euh, euh, mu ngi vitrine cassée jëm kon ci journée noire pour la démocratie bu Sénégal image ba ngi ni Ousmane Sonko ci biir autom di xol ñi kon di élément yu bib yi nga xamante finalement dañ nako wàccal bimu bañé nak ci lañ ko.

ci yéenekaay bi ñew également ci Ousmane Sonko mi nga xamante dañ ko exfiltré ci autom japp nañ datu élection présidentielle les grands chantiers Sénégal jëm kon ci patronat bi Onyx kon éjecté na 4 milliards de francs CFA jëm kon ci mbiram xarala yu bees yi moom kon data center yooyu. suuf euh, su daal na ci ñëwaat jox na kàddu gi déjà. Mame Mbaye Niang mi nga xamante ni kon nee na dafa braqué wu nee na volonté bi mu amoon ngir daal di démissionner bañ ko jéeñee ci biiram Prodac boobu volonté boobu la am ngir rek kon wane citoyen ne kii di Ousmane Sonko du kuy wax dëgg président makk Sall même bu ko laajoon mu retiré plainte bi nee na kon moom du ci dellu ginnaaw jaral na ko mu bàyyi Macky Sall ak ak gouvernement am euh, nee na Sonko mi ngi doon xaar mu ñëw indi rapport ak yu ni mel wante loolu daal defu ko fi sinon rek leneen loo xamante ni lu ni mel et puis Sonko mi ngi noonu kon dafa mel ni démb ci western la nekkoon ndax fitna gi digganteem ak alkaat yi ni ko génnee. Euh, ci oto bi ba yóbbu ko këram maître Ciré Clédor Ly daal di koy ñaawlu et puis avocat am sax photographe am moom it Ousmane Sonko démb mbir mi xaw na ko laal. Hmm, le témoin quotidien Chérif. journée mouvementée ak vague d'indignation ci li nga xamante ni kon mooy carjacking ah, muy Sonko rek forcé gi nga ko forcé génn ko ci otoom yóbbu ko ci beneen oto boo xamante ni oto police la ñu ci bëri nag ñi ngi koy ñaawlu mi ngi noonu gis muy awa awale Abdourahmane Diouf Amnesty International Alioune Tine Aminata Touré a marre Ligue sénégalaise des droits ñëpp. daal ñi ngi dénoncer lu nu mel ca jamono jooju benn bokk moom ñi ngi ouvrir la feu ci kii di Ousmane Sonko et tamit ñëw ci lu am solo lii aussi muy. Euh, ndaanaan bi moom nag kii nag Jean Paul moom moo bind benn lettre jaglal ko doomam Barthélemy Diaz ci taxawaay bi nga xamante am na ko ci wàllu politique rawatina ndam yooyu muy lettre émouvante ah, d'un père a son fils. Hmm, c'est bien Sud Quotidien. ah ñëw ci affaire euh, Prodac Sonko Mame Mbaye Niang mel ni kon procès mille péripéties la ca xew lépp kon yéen kaay bi ñëw na ci soxna si dinañ ko gën a yaatal. incha allah record. record daal di ñëwaat ci ah, Sadio Mané bi nga xamante ni kon démb recevoir na Jatara fële ca Munich ba Sadio offrir benn maillot nee il se sent très bien mom Sadio Mané Bouna Sarr tammi gis nga ko nee na yàkkamti na moom it sélection ndax ñom ñaar ñi ay blessure kon mo len tere rek participer ci coupe du monde bi et puis Ari Kane moom it kontaan na trop ci gonne gi nga xamante moy mooy Pape ci taxaway bi nga xamante amna ko et puis faute féminine ci walu barrage Sénégal Haïti ñanga ca ñomit Kalidou la prestation qui change tout ci rek ay action yo xamante amna am na ko Crépin tamit démb dugal na bit bu reuy Monaco moo football ak Leverkusen ci Europa League mm. football ba tey ci stade. waaw ñii moom xam nga leen ah waa waa mbuur bëri nañ ci. Ah. macha voilà mu mel ni ñoom it ah am na lu am solo loo xamante daan nañ ko def ci équipe nationale. c'est Lyon en activité mais loin des projecteurs ndax gisatul leen gis nga ko rek ku mel ni ñoom gi ngi ni Moussa Konaté ak. Papiss Demba Cissé Kara Mbodj Diafara Sakho. ak ñoom ñëpp daal ñu ngi ci biir ba ci sax Salif Sané mais malheureusement dafa mel ni daal taxawaay bi des na karaaw sax gis nga ko léegi u ak Anderlecht daal lay entraîné di football ak ñoom ci jamono jooju Papis Demba Cissé moom ma ngay cartonné pourtant fële ci Amiens ah. la même chose Gassama également nesper espère que dinañ ñëwaat en forme ci équipe nationale bu Sénégal Bouna Sarr moom nee na pare na. ngir bor di ñëwaat équipe nationale. Mm, ñu tëjee ak sunu lamb chéri. Amadou Ly moom nag gis nga ko rek il se mouille moom nee na rëgg moo partir en favori face à ki nga xamante kon euh, moom mooy Sa Thiès ñoom ñaar nekk dafa mel ni ñoom ñoo war a bëri ci wàllu làmb soxna si. Mm, merci beaucoup Chérif ba ci kanam ci ñaareelu pàcc bi ñu dellu si waat ci yëglekaay li ñu xëyee ñu taxaw ci actualité bi nga xam ne journaux yëpp moom lañ xëyee tey Alaaji Malick muy démbali xewoon euh, àtte bi diggante Ousmane Sonko ak.